fay naa la. tur bi naka la. Fodé Camara. d' accord Fodé Camara gannaaw ba ñu la mosawoo ci li nga xamante ni moom moo dal ci seen kaw euh, dëkkandoo yi leen nga ñu mën a jox comme information ci li nga xam ne moom moo fi xew. bon xanaa avant tout xanaa sant yàlla rek. xam ne ni tiis la naqar boo xam ne la bon suñu borom rek mën lii daal. Mm-hmm. waaw di di ñaan yàlla yàlla na yàlla defal jàmm. bon di ñaan yàlla tamit yàlla na yàlla xare àjjana ñu fi ñu fi ñàkk seen bakkan. Mhm. d'accord nga bokkoon ci ñi nga xamante ni euh, daan nañu sauver ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir ndax mën nga ñu wax ñaata personne ñoom ñoo ngeen génnee ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan. non fii tey ji ñi wax ñii ñëpp euh, ñi nekk ci biir kenn nekkul ci biir ñi nekk ci biir ci biir la kon man mi la man fii laa dëkk ay dëkkandoo lañu bon kër gi euh, ñu fi dëkkoon nekkatuñu fi. dañoo dañoo déplacé wu. maanaam borom kër gi. waaw borom kër gi nekkatu fi la dëkkoon nag. nekk dëkkandoo bu bu bu respecté doomu adama bu am cër bu bu nawloo ñëpp daal. Mhm. waaw francement parler xëy na li ndogal bu dal ci kawam la rek. Mhm. mais amul benn problème. Mhm. d'accord ñi nga xamante ni ñoo am si ay gaañu gaañu tamit mën leen a xam nombre bi ci ñaata la toll. noo mënuñoo xam ñaata lañu tant que gars yi pare ñu ñu fi nekk. parce que man action bu muy am man nii laa rombee parce que man Sénégal bu mu jeexee la ba pare ma jóge ci dibiteri awso bi ma jóge ci dibiteri awso bi romb comprendre ñëw sama kër ba ma ñëwee di tijji sama néeg laa dégg affaire bi nag kër dama yaakaar ne woon BRT bi BRT bi parce que chaque fois BRT yi daf ñuy euh, bu ñuy kii dañuy def dañuy def dérangement quoi BRT bi lañ ko tegoon après courant bi jékki-jékki du coupé léegi nit ñi ko koñ bi yëpp génn daw naan am na kër gu daan am na kër gu daal lañ génnee ñun ñëpp boobu yóbbaale ñu sax ay dàll. Mhm. bon yàlla def ñu dem foofu noonu mais man ba ma demee foofu noonu ba ma ñëwee gis kër gi daan maa ngi fekk sama beneen rakk di di jooy ku ñu naan musaa mhm. waaw moom man fa laa ko fekk xaw ma naa si kër gi la nekkoon xaw ma fal la nekkoon mais fekk naa ko foofu muy jooy ma ne ko Moussa lan la. mi ma Aliou moo nekk ci biir. Mhm. comprendre nga ma ne ko Aliou moo nekk ci biir si laa yéegee ci kaw. ma dégg suuf gars yi naan loolu dafa métti quoi comprendre nga mhm. mais boobu nag gars yi dañuy wax xam nga mhm. boobu après ñu si la ñuy sauvé si la gars yi ñëw waa koñ bi ñëw balaa sapeur di ñëw mhm. ñu sauvé fi benn xale waaw ak yaay ji. xale bi la toll. non liir la. ah xale la. kooku xale la xale la. xale la kooku mun na wax sax wax bu dëgër noonu munul wax xale la quoi munul wax mais xale bi euh, sant yàlla dara jotu dara jotu xanaa tiitaange quoi. titaan ga moo koy moo ko dal quoi mais dara jotu ko. mais sauvé nañu xele bi ak ki nga xamante ni moo di yaayam aussi. ak yaay ji balaa sapeur di ñëw su ko mais sapeur tamit bu ñu leen wooyee ñoom tamit ñëw nañu. Mm-hmm. franchement parlant on se dit la vérité mais ñëw nañu bu ñu ñëwee après ne écarté la ñu def seen liggéey. Mm-hmm. bon on va respecter ça. Mm-hmm. xam ñu écarté wu xam nga mais boobu ba léegi nii toog nañ lu yàgg xam nga te dafa métti parce que ñun ñoo yàqamti. bëgg a génnee ñu fa nekk noonu dëgg naa ci euh, sànq wax ji euh, ñuy tudd ki nga xamante ni moo di Aliou ndax Aliou moom locataire la nekkoon ci kër gi moom tamit wala. waaw non Aliou non pense pas je ne pense pas locataire la si biir kër gi moom gardien la woon. ak morom gardien yi quoi. bon fa la nekkoon amuloo kenn problème ñëpp ko xam si koñ bi. booy bu yaru la. waaw booy bu bien. waaw booy bu jox nit ñi cër la. man daf may romb grand faux la may wooyee. comprends nga. grand faux ma ne ko waaw grand Mhm. jàmb sant après mu dem mu dem mhm. mais franchement booy bu cool la xëy na tamit li ndogal la rek di du di gars di wax yeneen góos ay kër kër kër gi c'est-à-dire rek nangam sangam mhm. dugg na fii génn na fële non ndogal la ndogal moom ku mu fa fekk moom dalay yóbbaale. ndax kër gi dafa amoon partie boo xamante ni dañu ko doon defaraat wala. non man sama diggante ak yàlla lay wax man dugguma si kër gi bay xool fu ñuy defar ak fu ñu dul defar comprends nga damay romb si kër gi. man kër jàmbur su ma man ay seetlu yooyu man nekkuma sama nekku waa nekkuma sama nekkul samay affaire mais xam naa ne nit yaa ngi dugg foofu di génn am na ñu fa dëkk kon fu nit ñi di dëkk di génn loolu looy looy looy seetlu foofu ay kër gi dañ koy defaral dafa dugg na fii génn fële di lijjanti ay détails hmm. d'accord message bi ngay lancé jëmale ko ci ñi nga xamante ni moo di nguur gi même li nga xamante ni moo di askan bi ndax gis nañu jëye yu mel nii saa bu ñëwee rek day yóbbaale li nga xamante ni moo di bakkan aussi non nguur gi moom non man duma wax dara ay nguur ay affaires yi demee noonu parce que ñun tey jii ñun ñu waa waa gox bi ñun lan la ñuy déplorer parce que ñun tey jii affaire bi affaire échange dégg kon lu ñu njëkkee lu ñu njëkkee nii ñoom mënoon nañ ko njëkkee si guddi gi parce que ñun waa koñ bi waa gox bi ñoom pare nañu woon pour dindi loolu comprendre nga mais bu ñu ñëwee bu ñu écarté ñu am su ñoom confiance ñu ne bàyyi leen ñu pousse comprendre man maa dàq gars yi man maa dàq nga ma ne leen gars yi ñëw nañu pousse leen may gars yi def seen liggéey voilà man maa leen dàq comprendre nga gars yi na ma ah ok amul problème bàyyi ñu bàyyi gars yi ñu taxaw fii nii doo dégg minuit minuit ba léegi nelaw ma minuit ba léegi may wax yow nii ba léegi nelaw ma changé ma sa yëre bu ma sol nii dina nii laa sol dégg nga mhm. waaw minuit ba léegi nelaw ma d'accord merci beaucoup ok ñoo